di la ci ndokkeel di ñaan sunu borom bàyyil nu la fi te may la wér ba yéene yi nga xam ne fas yéene nga ko liggéeyal sëriñ bi yëpp nga mën koo def ni nga ko bëggee te nu ak yow ndigal lañu jotoon nag bañ ko jotee ba fii mu ne ci la ñu nekk muy màggal gi jàll ci jàmm ak salaam ñu ñaan nga yàgg koo jiite lu yàgg waaye amoon ndigal tam ci dundal bis bii nga xam ne mooy bisub soppeeb Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi biñ jotee ndigal li nag nan ko jote woon rek mooy jéem a roy na nga xam ne noonu la ko sëriñ bi daan dundale ci subaak léegi ba tam jàng nañ fi fukki kaamil ak ñaar xasaay yi di itam kenn xamut nu mu toll bi guddi gi jotee itam laltaaye nañ ko waxtaan woo xam ne dañuy def at mu jot ñu tànn benn tomb ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ren jii ñu tànnoon tànnu tànnu euh, dunduk sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ci biir këram ndax kat moom la ñu sunu borom royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana tax at mu jot ñu tànn benn tomb boo xam ne dañ ko jàngat man koo royee ca dundam gu sell ga sallallahu alayhi nga xam ne sëriñ bi amutoon benn soxla bu dul rek xeñtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aslamtu li rabbin la sharika lahu maa allati xafwuhu shughli wa xaajaati loolu moo tax ni nga ko diggale woon boole ko ñaari mbooloo yii muy daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo yore jumaa ji ak rawdu rayaaxiin bi nga xam ne itam ñoom ñaar ay jëfandikukaay yu sëriñ bi lañ jaayante amuñu genn bëggul weesu déglu ndigal ba mën koo jëfe moo tax ñu àndandoo liggéey bi noonu ci suba ba léegi sëriñ Mbàkke Abdourahman moo doon waxtaane waxtaan woowu mu doon waxtaan wu am solo woo xam ne bu yaatu la bi ñu tàmbalee njàng mi itam nañ ko baaxoo def rek dañ ko ubbee barzan jiwu nga xam ne maa doon barkeelu ubbi ko jàng ci ab ay bunt sëriñ Afiya sëriñ imaam mii moom itam jàng ay bunt ñu jox sëriñ Habibu Jatara moom itam mu àggale ko noonu lañ ko baaxee dafa at yu jot saa bu ñu benn bunt ci barzan jiwu nag dañuy yëkkati benn fukki bayit ak ñaar ci jas bu fukk yëkkati fukk ak ñaar ci mawaahibu yëkkati fukk ak ñaar ci muqaddamaat nga xam ne ñaar ñetti téere yi ñooy jeexandoo te bunt bu ñu jàng day tollook ni barisan ji di waxe taarixu yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu feeñagul ba bu ñu feeñee ba bi ñu laqoo li fi xew lépp bunt bu ñu yëkkati rek day tolloo ak benn bunt ci ñetti xasida yi sëriñ bi yooyu yi loolu lañ ko doon barkeeloo kon nag ñu ngi la koy jëbbal tey fedd feddliwaat sunug laxasaay feddliwaat sunug jaayante xam ne amuñu genn bëgg amuñu lenn lu nu bëgg lu bi amuñu lenn lu ñuy xeñtu lu du sëriñ bi na mu waxoon te soppeem ba rek sallallahu alayhi wa sallam maa la si xafuhu shoxli wa xaajaati kon nag ñun itam sëriñ bi rek moo nekk mooy sunu loolu waa xisbu eh, tarqiya itam sëriñ sëriñ yuusu dafa waxoon sëriñ afiya mii na ko bâche bii ñu defoon ci buntu kër Cheikh Mahmadul Fadil ci màggal gi dañu ko fi bàyyi ngir ñu mën koo jëfandikoo ci gàmmu gi fi mu nekk ni soxna yi ñoom itam foofa lañu féete ngir sàmmoonteeg war woon may barab bi ak ni nga xam ne noonu lañ war a doxe fii ci barab bi kon Mbàkke ndoo ngi tënk foofu tey delluwaat ñun ñëpp di yaasal sunu jaayante waaye di ñaan sunu borom bàyyil nu la fi te may la wér ba sa yéen yëpp nga man koo yeggale te lépp loo xam ne jëf nañ ko sunu borom nangu na ko ci barkeb sëriñ bi